waaw man la Ndeye soxna Ndeye Mbacké euh, mun naa wax ne léegi ñoo ngi ci grand parti ñun ak suñu mouvement ndax union boobu lañ doon sele diggante grand parti ak convergence pour la paix et le développement boole nañ suñu loxo fas yéene fédéré suñuy force yooyu yëpp ñu boole ko fas yéene liggéey ensemble di xàccandoo di dóorandoo ba lu ñu yàlla may ñu jël waaw fa ma nekkoon euh, dara loo xam ne euh, sama euh, dara luy personnel nekkul ci loolu parce que fa ma nekkoon programme moo ma ko yóbbu ak doyloo programme yoonu yokkute mais avoué que yoonu yokkute depuis lors na ci ci côté yu bëree bëree bëri ci côté yooyu mu tardé gisuñu yenn yu bëri et puis institution yi ñuy teg di ko tegaat fi réew mi toll nga xam ne réew mi am na yeneen priorité yi yoo xam ne defe naa ne moo gën a war a ñor population bi ak njiit yi notamment euh, au conseil bi ñu teg bi jàll je n'ai rien le président Ousmane Tanor parce que kilifa gu mag la jiite réew mi sax jomb ko a fortiori euh, au conseil euh, des collectivités territoriales je pense que mun na koo jiite mais institution bi c'est de trop ci di ma xalaat man donc yu mel noonu ak yeneen ak jafe-jafe yi nga xam ne toujours jigéen ñi ci la nit ñi nekk soo xoolee réew mi par presque xar kanamam malgré la maturité démocratique bi nga xam ne egsi nañ ci tey te ñépp seede ko mais xar kanamu Sénégal changé wul bu baax a baax comme niñ ko yaakaare woon genre déception yooyu tax na bokk na ci li gën a tax ma ni xëy na suñu seetaatee fédéré wu góorgóorlu bu baax jàppale ñeneen xëy na réew mi beneen alternance amee xëy na réew mi dina changer. parce euh, nekkin bi ci biir bi nga xamante ni yàlla def na élection locale yi jot il euh, y quelque eu de personnalités qui se sont donc retire pour tout simplement confectionner les listes. et pendant ce moment-là dañu bàyyi fekk ñun ñëw nañ ba ñu wooñu ba ñu jubóole ñoom ñëpp ba kilifa gu mag gi ne ñun ñëpp nañ bokk ñu àndandoo ensemble pour jox ko victoire biir Thiès et je pense que waxoon na dëgg parce que nombre de voix yi ñu amoon 4000 yu manqué tuuti hmm, ak sept conseillers municipaux yooyu bu tegu woon si li nga xam ne moom la ñoom APR amoon temps boobu dañ doon jël commune nord bi au moins mais bi nga xamee ni ñoom bind nañ seen i liste jiital ñi ñu yaakaar fekkoon ñu fii ci bunt Big Fin ñu toog euh, yëgaluñu ci loolu dara man ci laa ne woon damay ñibbi ci la mouvement yi ñu àndaloon ne su fekkee ngeen di politique ngeen ñëw parce que ñoom ils ont posé des actes politiques et il fallait répondre par des actes politiques ci lañ ñëwee daal di defar suñu liste en coalition avec feu Mamadou Dieng nekk suñu papa nekk suñu xarit puisque moom taawam sama camarade de promotion la ñoo maase ñu teg suñu liste boobu yàlla suturaal ñu ñu daal di am suñuy conseiller et ci loolu aussi te fekk na boobu suñu récépissé parti génn donc euh, ci la ñu yàlla yóbboo fële ci mairie bi ñu nekk fa adjointe au maire donc doxalin boobu xawoon nañu ruusloo frustré loo ñu bokk na ci li nga xam ne tamit ñu xam ne famille bi ñu doon wër politique famille la d'abord àndandoo la bokku xalaat ak di déggoo ak di wax loolu yëpp amu fa woon parce que am na ci loo xam ne ñoom waxtaanu biir lañ koy def su wax jotee eh, day am ñoo xam ne dañuy beru wax ba pare ñeneen ñi du ko soog a yëg donc c'est autant de frustration yoo xam ne en tant que parti euh, nous ne pas nu nous enterrer loolu tax na ci li nga xam ne bokk na ci li ñu soriloo euh, formation présidentielle bi. ñëwal ñu ci waaw loolu lu yomb a vérifier la ndax PDS parti bu organisé la parti boo xamante ne la ñëpp xamante te chef bi ko créé yaakaar naa ni mi ngi dund képp koo xam ne amoon na la moom xam na la. Eh, may leeral aussi benn point mooy eh, nekk ak nit mu falu fenn nekk fa kilifa di évoluer ci politique taxul ñi muy dendal di politique et pour preuve le 23 juin dem nañ sol suñuy t-shirt malgré li ñuy nekk ak ñooñu défilé taxaw manifester comme tout le monde wone ne loolu neexu neexuñu woon tout simplement amoon nañ liberté d'expression wu dem ànd ak opposition bi ci jamono yooyu taxaw fa manifester sol suñuy t-shirt wane ne projet boobu Wade doon bëgg tëral neexuñu woon mosuma woon nag dugal sama loxo man ci politique ba 2012 bi nga xamante ni euh, législative yooyu la sama mag bu góor xamal ma ni euh, dafay am coalition bu mu tëral mais tête de bi ko war a représenter biir Thiès moom amagu ko mu xalaat ma ci laa ko ni man politique bugguma ko te du nekk lu may mën gow ma ni sax dinaa ci mën a jàll ci la dem ci si biir mbokk gi ñu xamal ma ni man moom lépp lu mu nekk donte dafa taxaw si wetu gaynde man war naa ko faa fekk ndax suñu waajur bu góor bi ñu boole bi ñu ñëwee euh, suñuy yaay ci kër gi yaayam ak sama yaay mosuñoo am benn différent ay doomu kilifa la ñu woon ñu boole woon leen dénkante leen te loolu dañ ko rafetal ba man yaayam yaay laa ko daan wax bi mu gaañoo jooy naa ko donc euh, kooku lu mu nekk war naa cee nekk ma ànd ak moom daal di ñëw représenté ko biir Thiès bi ma dikkee ñi ma waroon a seeti ànd ak ñoom ñëpp daal di ñëw ca kër ga xamal ma ni ma su dee yow da ngaa dugal sa loxo benn ñun di dañ soog fukk daal di may fekk si ci loolu ma ànd ak ñoom coalition boobu bi mu jeexee résultat yi ñu am amoon na partie yu bëri yu mat 15 parti ak euh, lu mat 20 mouvement yu àndoon ak ñoom mais score bi ñu amoon fii ci Thiès amuñu ko woon benn dëkk ci la ma kilifa yu bëri approché yu jege nguur gi ne ma lii soo ko amee te 3 mois d'élection rek euh, de 3 mois plutôt de campagne autant pour mois nga def war ngaa mën a ñëw ci suñu wet nga jàppalee ko kilifa réew mi ci noonu lañ créé mouvement boobu nit yooyu ñu amoon ñu dajale leen def ko mouvement dugg ci formation nekk ci wetu APR di leen jàppale yàlla dogal di ñuy wër ñuy wër lu ñu def ñu def ko suñ mobiliser ñu mobiliser suñuy teeru président ñu ñu teeru ko à nos frais lépp lu ñu war a def ñu def ko ba yàlla def ñu xam ne euh, lépp lu parti di def ñun ndekete yoo ñoo ngi koy def ndax loolu sax seen benn collègue journaliste moo ma xamal ne yéen da ngeen a mel ne parti ndax dafa ma ko mës a laaj fii ci place de France mu ni ma mouvement bi day am aliru parti ndax dégg naa la Diourbel dégg naa la Touba dégg naa la dakaar dégg naa la fépp dégg naa la ba Casamance bi mu demee suñu xel daal di nekk ci ne comme noolu mooy parti ñu laaj statut yi nan lay bindoo ñu daal di koy rédiger dem jébbal ko euh, ministre de l'intérieur bàyyi ko foofu ñu daan ñu jox suñu récépissé ci récépissé boobu bi mu génnee mu tombeek élection locale yi ci la yàlla def euh, fa Mamadou Dieng waxtaan ak ñun xamal ñu ne la ñu fa représenté fële ca zone nord ba ak ci dëkk bi bu sañoon ñu àndandoo pour wutandoo yàlla def wut booba suñ borom suturaal ñu ba ñu amoon set conseillers daal di am poste adjoint au maire voilà. léegi yow ñu si lan ngay waaw législative yi di jege si euh, li may dénk waa Thiès rek ñu inscrire ñu inscrire euh, massivement ci liste yi te ñu xam ne carte électeur mooy kàddu nit ki te lépp lu la metti nga war ko faj ci sa réew te ku ne am na droit ci réewam parce que salaire bi ngay liggéey di ko gañe sax salaire boobu day dellusiwaat ci état. ndax di nga ci fay courant état am ci nga fay ci ndox état am ci TVA am ci keesu état xaalis bi dellu nga jënd ci sax à boutique dara TVA bi duggaat ci keesu état donc pour fal kilifa googu nga xam ne mooy jiite sa réew am nga baat ci réew moomu ndax xaalis boobu ñuy wax l'argent du contribuable tey mooy xaalis bi nga xam ne moom la état di fonctionner te ci ci ñin ñi lay génn kon ku nekk am nga baat ci réew mi te ci sa carte nga mën a jëlee sa baat ci nga mën a waxee fi nga far ak fi nga féete et je pense que ñàkk a ak ñàkk a voter bu metti la te warul benn citoyen kon loolu na ñëpp inscrire massivement ñu jéem a euh, bu ñu bëggee soppi xar kanamu réew mi changer la donne il faut que nit ñi tamit di inscrire di voter tey xam ne loolu mooy doon seen kàddu. merci. Mhm. soxna si après local yi dañoo gisoon ni nga nga waaw. diggante teekaaral du ñëwaat it nee nañu am na lu ci xew ci diggante bi. waaw loolu dëgg la mbay loolu dëgg la tekkaaral bi ñaari affaire moo ko waraloon euh, premièrement il fallait euh, faire beaucoup de recherche pour rédiger et présenter ma thèse et pour cela j'ai un peu pérégriné quand je me suis rendue en Iran en Arabie Saoudite pour fouiller euh, les recherches, euh, pour, pour, fouiller euh, et comprendre la communauté confrérique. Euh, initiée pour la première fois, euh, en tout cas, l'un des premiers instigateurs de, de, de, des confréries habite en Iran. Alors je suis partie pour, pour mieux connaître euh, Al-Ghazali, mieux connaître euh, sa, sa, structure pour mieux comprendre euh, les confréries en général. Voilà. Et à ma grande surprise, j'ai découvert euh, que l'œuvre de Cheikh Ahmed Bamba faisait euh, l'objet de modules dans l'une des universités les, les plus prises, les, les, plus les plus prisées en Iran. Alors, ce fut chronophage, mais très utile pour mes recherches. Je ne l'ai pas regretté. Et deuxièmement, je vous l'ai dit tantôt, euh, la politique est très jalouse. Il y avait une partie de ma vie qui avait été mise entre parenthèses et il fallait réouvrir cette parenthèse-là. Voilà, c'était juste ça. Réouvrir comment Ça dépend de ce que vous me demandez. Allez-y, formulez votre question et je vous, je vous réponds. Franchement. Oui, oui, oui. Je me suis remariée. Avec euh, vous le connaissez. Je ne veux pas rentrer dans les détails avec M. Ben Ahed, comme vous le connaissez, oui. Pour de l'argent, pour du pétrole Quand on épouse un homme, on épouse ses valeurs, sa beauté tout, ce qu'il a. Ce pas pour de l'argent, mais juste pour de l'amour. Il a des valeurs intrinsèque et j'avoue que je suis épanouie. C'est quelqu'un de très intéressant sur tous les plans. Si en plus de cela, il y a le pétrole, je pense que c'est bon. <laughs>